ñu ngi fi woon boobu ba léegi te ñuy wax ne épinglé nañu ñenn ñi ci foncier ak yeneen question mhm. yi ñeel ni ñu yoree woon réew mi avant l'arrivée du président Bassirou Diomaye Diakhar mhm. Faye waa xam nga par rapport à cette question je crois que la reddition des comptes comme ni ñu ko waxee rek dafa nekk une demande sociale mhm. et le peuple sénégalais est assez exigeant parce que ñëpp ñu ngi wax ne depuis l'avènement en tout cas de ce nouveau régime danoo war a gaawal affaire danoo war a agir avec promptitude et avec célérité parce que boobu ba léegi ay rapport épinglé na en tout cas ay anciens di dirigeants mais boobu ba léegi la justice n'a pas bougé maintenant pour que la justice puisse bouger comme que présent on en présente arsenal bi mu fi on a mhm. arsenal bi nga xamante ne tey ji moom la ñu war a actionner les mécanismes yi nga xam ne war nañ ko mettre en œuvre pour aller vers la répression de cette délinquance économique et financière am na. Mhm. vous avez déjà le pôle judiciaire financier il le procureur à partir du moment où tey ji rapport yi disponible na je crois que le parquet moom moo am l' opportunité des mhm. muy le procureur de la république bu fekkente ne am na infraction yoo xam ne ni c' est de son ressort muy le procureur de la république financière parce que bokkul ba léegi parce que parquet euh, pôle judiciaire financier bi dafa am parquet boppam dafa am mhm. procureur boppam moom la tuddee le procureur de la république financière mhm. bokkul ba léegi ak ki nga xamante ne moom mooy le procureur de la république ku ci nekk ci ñoom ñaar am nga ay règles de compétence mhm. maintenant à partir du moment tey ji ñu décider mettre en branle li nga xamante ne mooy la machine judiciaire bu dee da leen war a yóbbu fi nga xam ne moom mooy pôle judiciaire financier le procureur de la de la république financière moom mën na am à partir du moment il a à sa disposition un rapport boo xam ne dafa épingler un ancien dirigeant bu ko defee mën na convoquer kooku mën na demande à ce que peut-être sûreté urbaine la DIC wala benn commissariat boo xam ne nekk na compétence am na compétence dans ce sens-là mu confier dossier dossier mu confier ko dossier bi ñu convoquer kooku noonu mhm. léegi bu ñu ko convoquer ba pare ba def audition bu fekkente ne on a constaté que les faits sont avérés les détournements yi nga xamante ne tey jii nii rapport yi génn na que c' est avéré à de ce déterminé le procureur de la il a la possibilité d' accorder nga xamante ne nii jàpp nañ ne yorin gi nga xamante ne ne yoroon nañ ko c' est en li nga xam ne sénégalais moom na doon xaar ci ñoom puisque c' est des deniers lu leen confié woon. et rapport yi nga xam ne tey ji moo leen épinglé ce ne sont pas des rapports yoo xamante ne cours de contrôle ci régime Bassirou Diomaye Faye moom moo ko publié mais c' est des cours de contrôle au temps de Macky Sall ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko mmh, publié mmh, mmh. donc puisque l' état c'est une continuité il y a aussi ce qu'on appelle la continuité du service public de la justice les autorités judiciaires ont bel et bien la possibilité présentement ñu commencer enclencher des poursuites dans ce sens là donc poursuites yooyu nag ki nga xam ne moom moo am dayee enclenché ka moom mooy le procureur de la république bi nga xamante ne ni en droit moom mooy le maître de l'opportunité des poursuites mhm. pourquoi ñuy wax le maître de l'opportunité des poursuites mooy day poursuivre à chaque fois qu'il le juge opportun léegi nag jusqu'à présent quest en tout cas euh, qu'est-ce qui a favoriser ce blocage ce ralenti bi nga xamante ni ñu ngi koy constater on ne sait pas mais en tout cas le procureur de la République à chaque fois qu'il le voudra bu fekkente ne constaté na ne rapport yi ñu ko jox épingle na ay ay yoo xamante ne ni yoreen bi yore woon alalu askan wi lii dañuy public am na ci lenn loo xamante ne ni jaarul yoon am na possibilité mu demande à ce que ñu ñu ñu convoqué leen bu leen convoqué ba pare ñu jàpp ne leen di tuumaal am na le procureur mën na leen déférer au parquet et après défèrement au parquet le police judiciaire financier am na chambre d' instruction financière am na chambre d' accusation financière am na chambre de jugement financière. moom pour bu jënd risque. ah y' a tout. Mhm. am na am na procureur. Mhm. am na chambre d'instruction financière. Mhm. am na chambre d'accusation financière. am na chambre de jugement financière. am na chambre d'appel financière. y a finance. y a tout dootuñu ko defati. xam nga auparavant. il mhm. y avait pas une juridiction spécialisée. Mhm. lépp juridiction de droit commun ñoo ko doon gérer. mais boo xoolee par exemple le président Macky Sall bi ñu mettre en œuvre le pôle judiciaire financier financier. c'est une inspiration en tout cas française parce que mm. France nga doon dégg ñuy wax le parquet national financier bi nga xam ne parquet la boo xamante ne nii dafay spécialisé wu pour pour réprimer la délinquance économique et financière mm-hmm. donc à partir du moment où Sénégal am na ko à présent donc ñu ngi xaar actuellement nii à chaque fois que ñoom ñu jugé ko opportun ñu convoqué ñi nga xamante ne tey jii ñoom ñooy les anciens diri diri dignitaires yi nga xamante ne ni rapport épinglé na leen pour ñu laaj leen ñu interroger leen par rapport à ces irrégularités à ces malversations à cette Euh, économique bi nga xamante ne ni sénégalais yàgg nañ ko jooy parce que mënuma concevoir. Euh, man loolu est-ce que ça va prendre encore du temps parce que y a y a certains sénégalais qui commencent à s'impatienter ñu ngi wax ne dafa yéex. dafa euh, yéex tout à fait boobu ah yow tamit da nga jugé. non je pense que dafa yéex puisque à présent à partir du moment où rapport yi disponible na. juridic juridiction bi mettre nañ ko œuvre. le procureur il vient d'être installé donc je crois que bi kon. selon peut xam nga xam nga tey ji par exemple le le procureur de la république financière wala le procureur de la république en tant que tel ñoom ñoo xam. ban mm-hmm. moment moo opportun parce que c'est pas pour rien ñu tuddee leen les maîtres de l'opportunité des poursuites. Mm-hmm. est-ce que ñoom jugé gul nañ opportun enclencher des poursuites. ok ah donc attendre des opportunités quand même. Ah, ils peuvent attendre des opportunités. léegi opportunités yooyu kañ la war a am ñun xamaguñ ko. on n'a okay. pas les éléments d'information pour comprendre ñoom kañ lañ war a juger opportun pour enclencher les poursuites mais en ñoom am nañ possibilité ñu def ko ci à chaque fois bu leen soobee. d'accord te peuple bi présentement ni loolu lay xaar ci ñoom. parce que on en a assez de ces politiciens yi nga xamante ne tey jii de par leur poste de responsabilité ils vadrouillent avec un patrimoine exorbitant sous le de de de des yi nga xamante ne nii am na ñoo xam ne bu ñu yeewoo pour ñu am fukki dërëm ñu jëndee kaasu café sax c'est wallaay wallaay dëgg ne serait-ce que pour rendre mm-hmm. justice à ces mm-hmm. yi nga xamante ne nii dañoo nekk dans le désarroi dañoo mm-hmm. nekk dans une situation économique et financière catastrophique am ay nit yoo xamante ne a mën a servir par rapport ak responsabilité yoo xam ne amoon nañ ko que ça soit nga nekk ministre que nga nekk directeur wala nga gérer agence bu fekkente ne yor bi nga yore woon alalu askan wi da nga jaawale woon sa poste ak poste askan wi yaakaar naa ne mécanisme yi nga xamante ne ni état bi mettre na ko en en en œuvre war nañ gaaw actionner ko à travers le parquet pour tey jii nii kat ñi nga ne tey jii war nañ leen a a traquer euh, euh, euh, juger leen ñu àtte leen li nga xamante ne jël nañ ko te bokkul ak li nga xamante ne nii. Mhm. seen seen moomeelu bopp la ñu delluwaat askan wi yaakaar naa loolu c'est plus qu'une demande sociale. évidemment d'accord d'accord weer ci benn fan. ñëw soxla. waaw non daa daa war a ñëw sax kooku moom. on y tient. en tout cas merci pour euh, l'invitation c'est moi qui suis honoré en tout cas ma ñëw seen plateau bi pour discuter en tout cas des questions brûlantes de l'actualité politico-judiciaire parce que comme j'ai l'habitude de le dire xam nga ñun ñi nga xamante ne yàlla am na lu tuuti loo xamante ne jox nañu ko xam nañ ko ci wàllu yoon waruñoo laisser en tout cas la nature a horreur du vide parce que buñ toogee waxuñu rek on va laisser la possibilité à ne tey dañuy def ay yoo xamante ne ni mardi daal yi mën na désœuvrer wala nga xam ne moom mooy opinion bi donc ñu am disponibilité rek rassurez-vous dinañ ñëw en tout cas expliquer les Sénégalais par rapport aux questions judiciaires yi nga xam ne moom mooy def rayé la chronique et vraiment j'ai aimé l'accueil la sympathie bi nga xamante ne ni am na sans limite et je vous remercie en tout cette invitation merci jërëjëf waaw amiin amiin amiin mucc mucc la xewal bu bëri. fii mm-hmm. saawaan baawaan ak lu ñëw rek daa ci des. yi mu jox ma ci sànwaar. <laughs> incha allah ñëpp dégg wallaay dëgg la dëgg la ko séddoo rek. <laughs> loolooy dëgg. nañ ko séddoo loolooy dëgg loolooy dëgg. loolu laay def comme trahir na mafia bi. Mm. yow nañ ko séddoo waaw waaw Nabou dafa trahir mafia bi. sama sopp bi. far yi. jërëjëf gis nga de sonn ak li nga wax lu neex mi yëpp. voilà voilà donc moom moom it am nañ mbégte partagé ak moom débat bi intervention yi pertinent na trop macha allah. di gërëm internet yi doon suivre Café Actu yëpp. ñi ci réew mi comme ñi ci diaspora bi rendez-vous mardi incha allah rabbi. incha allah. trahiruma euh, mafia de ah ajaratu euh, man son mooy sama bos. Ah, waaw waaw balaa yi tàggatoo faaw mu souhaité ko nga joyeux euh, wax dëgg yàlla li may wax xam nga mhm. dama jooy léegi ay Babacar Ndiaye ma bëgg a ak yooyu noonu <laughs> mais dama ko lu ma tële la ay ay wax ak yii nii feeñ tële man yooyu yëpp lu ma tële la mais bon dama fa ma jéem pour mami. Mhm. wax dëgg yàlla ci subaak léegi ñi ma woo pour bëgg a dugg. Euh, ci antenne bi ànd ak ñun euh, kenn xamul nu mu toll. ndax mbaaxam. macha allah une dame de talent. intelligente hmm. baax